Cheikhouna Gaye Touba Tëlu Bees Tëlu Bees waaw fii ñu la fekk nii fan la mooy gaaru mag fii mooy gaaru mag waaw lii nii ay cantine la ay bâtiment waaw kenn ko fi xaw ma nag fii laa ko fekk wax dëgg yàlla ndax man njëriñ laa jàng alxuraan waaw jàng ba ñibbi si dëgg bi jàng naa ba ñibbi si waaw mooy kii ma la wax nii Serigne Fallou Serigne Bassirou waaw léegi yow fii loo fi def dëgg tamit fii dama fee fi toog am na nag ay gone fi nekk di tux hmm. di gens fii nii ci barab bi waaw am na waaw ñu si ëpp. fii leen dëkk si dëkk bi. dañoo daw daara. gone yi ndaw fi ëpp. léegi ana am na mag ñu fi ñëw di si. Mhm. waaw am ñoo xamante ne ni ay liggéeykat lañ li fi ñëw di tux si. Ah, ñëw bu ñu dem. dem ñibbi seen yoon waaye gone yi si ëpp. dañoo daw daara seen bàyyi dem seet. ñu nekk fi di gens am na fi tamit ñoo xamante ni amuñu liggéey te bëgg na liggéey te amuñu ko am na ñoo xamante ni buñ am na ma soo jël bu amoon jaay man maçon laa woon waaye instant liggéeyatuma dara. man de wax dëgg yàlla au daan liggéey suñ place moom dama fa daan dem xaw ma nag lu ma fa jëlee damay jékki-jékki rek dem sama yoon sama mbokk ngi fi sura sama maama ngi fi buñ ko seen laaj baar lay liggéeyee Omar Cissé Baye Omar Cissé sama yaay ñu ngi ndar Angaltal Jaaminaar man da wax dëgg yàlla lan mooy sama problème dama seen place daal mënu ma faa toog damay dem ak ñëw rek mooy lan sama xel mu day fii fii xam nga fi yow fii xam naa fa waaw lu tax nit ñi fi nekk lan lañ fi def fii daal nit ñi fi nekk ku nekk soxla soxlaa fi indi ku nekk li ngay dox ñii dañuy tuux ñii ku nekk daal li ngay dox tax lu tax ngeen di lu tax xëyu leen man de wax dëgg yàlla seen place a ngi nii buntu ko seen laaj baara xam ma lan moo ma fa teree dem liggéey uude laay def ak man trop du bëgg yomb de du bëgg lu yomb de ay naqar naqaru àddina rek ak kër mooy loolu waaw sama tante laa nekkal ak sama maam sama ndey ak sama baay ñi ngi ndar Angaltal Jaminaar fii laa nekk Sorofin man fii lan ma joxe sama maam Baye Omar Cissé fii lan ma joxe jàng naa Alxuraan franco arabe laa doon jàng ah, école Sëñ Cheikh Gaynde loo mu sëñ ma daal bindaloo léegi nga bàyyi jàng jàng wuute waaw mën nga mëcc bi torop lu ma ci bëgg a def dama koy def ma ci bëgg a def dama def waaye bu fekkee ne boo liggéeyee loo am ñëw fii kay sëñ bi déet moom bu ma amee place toog fixe am ko ma dimbali kay damay liggéey taalibe Serigne Saliou yow fii yow yaay chef bi si non non man fii moom du ma chef dama fay jaar rek damay bay ñii bi lambay su ma ba dëkk damay laawaas su ma laawaasee après daal di nekk sama métier. maa ngi raxasee hôpital 28. hôpital 28 heure bi nga la waaw damay entraîné waaw. lan damay football damay damay appuyer avant damay def lépp. Hmm? da ngay tox tuuti non damay tox cigarette nag moom. du ma ko def waaye damay tox cigarette. man def naa ko so at. loo defoon def naa ko so at tuumal lañ ma def. ma dem koso at dañ ma tuumaal na man damaa jël booy dafa ni waay sa ma tuumaal man damaa jënd téléphone jàmbur te jënduma ko hmm. yaa ngi dégg ñu tuumaal ma si ma tëj ci at Abdou Mbacke Bara Dolly ak suñ suñ Modou ak si suñ seex xam nga leen ñoo ñëpp samay nijaay la ah, suñ Bara Dolly mii nii sama maam la aji Mbacke ah. mooy sama yaay Baye Dame Fall mooy sama sama papa Baye Dame Fall men yow noo man Fallou Fall looy man lu may def fii ñàkk ñàkk xaalis rek moo moo moo indi fii. moom moom jàmbaar la sa tur ñibbi seen kër. bu ngoon jotee. maanaam fi ngeen di yendu fu ngeen daje. Ah? ah dañuy yalwaan moom moom moom moom kër naa yalwaan. fu ngeen di maajaale ci wër rek yor pot yi dugg si dale kër yi. mais mais yow yow bu baax nga bokk député yooyu waruloo nekk fii di fi taxawal yooyu nag. Ah, député yi lijjanti ñun seen yaay lijjanti jàngul xanaa jàngul. ah, ah? jàngul jàng naa waaw. nga bàyyi jàng am nga métier man man am na am naa métier. métier mooy koro. koro la la. di an sa baay yow. dafa gaañ. an sa ndey. dafa gaañ. léegi ku ngeen dëkkal. sa maam. Ah, bu góor wala jigéen. jigéen. jàngule na ko. man école laa daan jàng kay waaye. jàng daal. waaw. foyam. yaayal mu das yo. kii fu mu yow yow foyam. kuluhiya. léegi lan moo tax daal lan. lu tax ngeen bàyyi. man damaa bàyyi daal di jàng école. léegi lu tax nga bàyyi lu tax mu bàyyi. damaa amul ay moyens. moo tax nga bàyyi lu tax ngay jógee ndaamaata di ñëw ba fii yooyu loo fi def. waaw dama fee ñëw pour football si. football rek moom fi waaw yow doo gën. déedéet ko def a yow bëri wax doon noppi eh, yow yow xam nga yow kay kay li nga jëloon reesagul kay yow rek ah? man damay gees waaw mais boy nag ah boy yi man moom laa daan jàng dama daan tarbiyé kon kii duggul woon non non man tey daara sëñ sëñ xaadim naar doomu sëñ bàkk son loon tey ku baax kooku lu tax nga jóge fi yooyu oh. <laughs> man maa ngi jàngee daara suñu bas jëng Jurbel jaar naa fa université Sëñ Abdu Lahat nag fa laa mokkale Alxuraan fa laa bindee kaamil sama kaamil sëñ bi moom sëñ Fallu laa ko jébbal waaw moom sëñ Fallu moom laa moo def Touba ca kanam yow foo dëkk yow maa ngi dëkk Touba mbal gi kër Baye Fallu Fall waaw damay faral di ñëw fii ci damay faral di ñëw fii damay faral di ñëw ci barab bi waaye nag lépp nag natt suñu borom la man dama daan marchand ambulant laa daan def waaye suñu borom moom ma natt ma amoon feebaru xel wéer di xel laa amoon li amoon ma jot koo fajoon nii ba suñu borom jeexal xaalis ba fi mu toll nii may ñëw fii bu ma rafet na li mbaaw fajoon naa fa docteur Boissy faj na ma waaye instant bi moom laay fajoo su ma amee ko ma jàppale nag dinaa jël léegi li taxoon nga feebar mbaa bàyyi nga ko waaw bàyyi naa ko waaw ah waa des fois rek ma. <laughs> waaw. xam nga defal dàkk rek xam nga docteur bi ah, lu lu tubaab bi lu bi baax baax baax baax. waaw. yow mii xam nga ne yaa gën a mën a waaw loolu moom dëgg la xam naa dañu naan ñam naa ko neex na ba naa ko yomb. dëgg la dëgg la ndax yaa ngi jéem. maa ngi maa ngi sabab lu daal. Hmm. yàlla nañu suñu borom boole dimbali. waaye nag dimbali ba tàggali la li may jëfandikoo moom dinaa sant dina gërëm waaye suñu bi nag la ma. ngir ba bàyyi ko waaw. ñaanal la ma lu benn du ñaar. Hmm. waaye nag suñu borom xam nga daa bëri doole te saytaane wax dëgg yàlla seytaan daa bëri doole. mais fii fan ngeen di jëlee bon bi ngeen di toog yooyu. ah yii déet bul ma dugal nag. Cheikh Issa Diagne borom lagan lan mu tuddee te web suñu sooy bu Diagne maa ngi taxaw. yàlla nag mooy bindub jàmm bur yàlla ak ndogalam jaam ak pexem. doomu aadama ku ne am na jaar-jaar ku am nga jaar-jaar. da nga koy dégg sax nit ñi ko wax famille boo am na tur woo xam ne kii mooy lakkalu koñ bi. waaye loolu dañuy ñaan suñu borom dindi ko si ñun ñëpp képp ku ci ne